al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem ñi nekk ci al ibaadatu wal xidma yépp di sant bu baaxit ci doxinu daara ji am rekk lu ma bëgg ñi amee xel yépp tey xalaat te fekkee woon démb ñu delloo ci seeni xel ci joxe ci seeni xalaat ndax daara ji eh, ñi ci nekk yaakaar naa war nañoo mën a xalaat lu dikkagut joxe ca xam-xam boo xamante ne ñu nekk ci bopp réew mi suñ leen ca fekk see muy njariñal réew mépp buñ leen ci fekk si wutit ëllëg ki si biir lu ci mën a xew ñu xam ne daara ji moom joxe woon na ci xalaat yoo xamante ne buñ ca jaaroon loola mën na caa bañ a xew bu ngeen gisee ma wax wax ji itam mooy feebar bi nekk ci réew mi te feebar bi moom ni ko daara ji waxe woon ci ginnaaw rek newoon nañ bay boo ñu seet nu ñuy dëkkeek moom dëkkiin boo xam ne dana weef ci nun ndax mel na ne gan la goo xam ne dafa ñëw ngir dëkk si ak ñun gan gu ñëw ngir dëkk si ak yow nag da ngay seet noo dëkkeek moom te soppi doxin wa nga xam ne danga ko séntuwoon muy ñëw dafa ne kuy ñëw dem la te bi mu ñëw mu toog fi yow di tut loolu waxoon nañ ko ci ginnaaw kon mel na ne ah, mel na ne ñëpp a koy dëggal fi ñu toll ci wax jooju nga xam ne daara ji waxoon na ko te ak see woon fii léegi nag mu am lu ñuy bëgg a jural loo xam kuy amum xel ku ne tey xalaat war nga cee tiit ndax li muy bëgg a jur ñu ngi koy bay bay de waaye mën naa dem ba ëppi loxo mën naa dem ba jur loo xamante ne jàngoro ji moo ko gën a woyof ci noonu ndax ku ne xam na ne histoire Sénégal Mauritanie lu lu lu lu lu lu ñàkk fayda la ay kilifa taxawu taxawaay ba ñu war a taxaw ba mu law ba mujj àgg fi àgg loolu jullit yu bari yàq alali jullit yu bari yóbbe it jullit yu bari bàkkaar bu bari ndax ku ne xam na ne histoire Mauritanie mi ngi xewe dëkk bu ñu waxee Njaawara maanaam bu ñu xooloon histoire boobu li ko waral lépp lépp walletu sëpp moo ko waraloon walletu sëpp walla tusa bu waxee ne boo ko budd boo wattoon doom ya buddi ngooñ ma jaay boole lépp jaay du mat ñaari junni moo indi star bu tol noonu te lépp mooy bàyyi gañu bàyyi gañu bàyyi ngir tàmbali taxawuñ ca nañ ca war a taxawe muy law law ba mujj jur fitna joo xamante ne waxuma la ca dem ci bakkan waxuma la ca yàqu ci alal waxuma la la ca nekk ci diggante yàqu waxuma la ñu ci toxoo ca fañ dëkkoon ñu génne leen kenn xamut nu mu toll ci loo xamante ne bu ñu xoolee la waral histoire ba lépp lépp ëpput waletu sëb woo xam ne matul ñaari junni ndax njaawara dafa am wet goo xam ne dañ cey jéggi dex gi di fa baye ndax ku ne xam na ne dex gi ci Sénégal la bokkoon Mauritanie diggam ak dex gi matoon na soixante di kilomètres ci jamonoy Senghor bi nga xam ne lañuy am indépendance ah, ginnaaw bi ci lañu dafay seeni yëf daal ba def frontière bi muy dex gi waaye loolu sax yitteel lanu yitteel rek mooy négligé gi nga xam ne am nañ ko ci diggante baykat yooyu ci seetaan goo xam ne seetaan nañ ko ba mu mujj jur lu rëy ci réew mi ndax ku ne xam na ne waletu su boobu ni mu demee mooy xale yi njaaware yi dafa am am ruur mu fa am mu jur bu dëkkee Murtani ginnaaw dangay ngay jéggi dex gi te tool yooyu kon day mel ne ak Murtani dara doxul seen diggante am ruur am ca xale yi jéggi dex gi dem fekk jur goo xam ne mat na <coughs> mat na juróom juróom fukki xar juróom fukki gàtt ñu dal di koy jiital andi ko njaawara te ku ne xam na ne njaawara am na sous-préfet ñu daal di rey fanweer yee ñoom def ko def daal di koy defub reer ba ñu desal ñaar fukk bu ba ñu xëyee ñu daal di rey ñaar fukk ya lépp kon su préfet alerte ba mu war a def wala la mu war a def bu jógoon taxaw na war a taxawee kon la ca juddoo mën na caa bañ a juddoo ndax loolu yaakaar naa ne eh, ku ñu dégg dénkub gox waroo bàyyi ñi nga yilif di def tooñaange gu rëy gu mel noonu nga di ko ca bàyyi ba ñu xëyee dellu ba ñu delloo ah ñu daal di jugaat eh, eh, ak ñu gàddu xepp ñu gàddu yu lëfin daal di delluwaat ne dañuy dañuy seetewaat walet wa ba xam am na jur go fa jegem déet booba déedéet bu ñu demee la ñu bëgg mooy jur gu njëkk a daje tewet tewet ga rek daal di jiitlaat indi ba ñu demee xam nga Mauritanie ni mu baaxoo nga xam dëkk bu ne lu mu ndaw ndaw am na ñaari soldaar yu fa nekk yoo xam ne dañu yore ay ay ngànnaay di garde réew ma di garde maanaam dëkk ba xam lu dëkk tuuti rek am na am na am na am na ñu ñu mel noonu ñu fa ne loolu it nga xam ne wax dëgg buñ koy xool sécurité la ci dëkk. ndax mën naa am bu fa ñaari ñu nekkul woon kon mën naa am gone yi faagaagal euh, waa dëkk ba waaye ñoom ba ñu ñëwee gardien Mauritanie yooyu artu leen bi leen artoo ñu bañ ñu tiire ci seen biir ndax booba ñoom engagé nañ ak euh, seeni gànnaay te ku ne xam na booba uh, frontière bi rawat na fu mel ne njaawara xale yi ni ñu mel mën nañ faa def jéye ju rëy ñoom it bañ tiitee ñu tiire ci seen biir daal ci jam léegi nag ñooñu loroti ñu daal ñu daal di yaakaar naa ñaar ñaar naa ñaar ñaar la yaakaar naa ñaar lañ ci jëm léegi ah loolu daal jóg ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal ñoom ñu ngi dégg coow li waaye xamuñu nu histoire bi demee càgganteeg ñaari état yi kon daal di cay feeñ. ndax bañ ba mu rek bu ñu taxawoon ah def la war a def leeral mbooloo mi li li ñu war a xam kenn ku ne xam fi ngay taxaw kon foofu ñu mën nañ koy bañ a agsi ndax ma ne bu ñu leeraloon la war a leeral maanaam nga xam ne ki nekk Sénégal xam ne lii moom la Sénégal jote ak Mauritanie ki nekk xam ne lii moom la Mauritanie jote Sénégal ñu xam ne kat ñaari réew yi. kon dañoo am ay ndaw ci biir yoo xamante ne Sénégal ñoom ñoo def yëfi jubadi ba tax histoire bi am kon su ko defee ñi nekk Sénégal du leen far ca loola ñi it su fekkente ne maanaam ñooñu nekk Sénégal ah teg nañ leen teg na ba ñu ñëwee rek jël jur jàmbur daanoon nañ leen di téye teg leen teg leen teg leen yoon wu leen war a teg kon seenum xel du nekk ci di dellu. ba la fa juddoo di fa juddoo kon loolu lépp ak bay bayle la ba tax na euh, muy préfet muy sous-préfet muy gouverneur ku mën a doon gox bi ñu la dénk da nga cee war a am responsabilité boo xamante ne askan wi euh, yaa fa nekk doon président de la république lépp loo xam ne war naa jóg te mën a indi tooxi doon a ëllëg war nga caa jóg ak say matukaay ya nga ca war a def ba ñépp xam ne matukaay yii nga ci def tax na saafara na jàngoro ji tax na saafara na jàngoro ji loolu nag bu ngeen gisee ma ko wax mooy danoo gisaat lu ko niru muy ci jëmmi feebar bii li ko niru lum lu mu doon mooy nii ñu koy lawto lawtee mën nañoo dem ba mu jur musiba mu raw mooma ndax ku ne dégg na mbëkki démb loolu ñuy wax ab néew bu ñu jël bëgg ko yóbbu ci armeel denc ko ñooña ne duñ ko fi denc ba histoire juddoo ca ba benn néew bañ doon denc yàllaa ja def waaye moom néew yu bari mënoon a fa am loolu nag xam ngeen ne te tim xel ndax ki nga xamante ne ah, wopp ju ko mën a dal moom faaw ñu denc ko ci armeel te sa moroom jullit la comme yow lu lu lu lu la lu lu ñëpp war a naqarlu la ndax sa moroomu jullit mu fi bàyyi ko ci mbas ñoo ñari bi ko indi ko bëgg ko denc nga ne dañ ko fi denc ñooñu fuñ jëm loolu ku mu tiitalu dara dara duutu la tiital te yu mel noonu la bàyyi muy law ndax senegal moom mënuñoo tàmbali waaye toppandoo rek lañ man moom te it dafay bari ñoo xamante ne lépp lu ñu dégg mu ne tëll ñoom jàpp nañ ne damm na te it dañuy jàpp ne wow doxi nañ ne war daal doxi ca saasa ndax lii waxoon naa ko fi ci ginnaaw bi ñu tàmbalee di sibile ay dëkk xanaa leen ne lii ñu def de danse la ndax bu yàggee ay xeet mën nañ cee bañante bu yàggee ay dëkk mën nañ cee bañante te bu boobaa la muy jur du lu jëme réew mi kanam nun nag fas sunu yéene doon magum xamoon nañ ko magum waxoon nañ ko lañ fas yéene doon waxoon nañ ko waxoon nañ ko ji mooy lan mooy politique bii ñu doxe ci mbirum jàngoro jii buñ ci deltiwut deltu ginnaaw arrêté ko soppi aw doxin mën naa dem ba indi jéey joo xamante ne ci réew mii kenn ku ne fa nga nekk jéey jooju doo ko umpale ndax li jar a tiit mooy diw dëkk sàngam la jóge bu jëwee ci dëkk mel ne booba dëkk moom ku fa jóge wërtu dem ci benn dëkk nga xam ne waa dëkk ba mu jëm dañuy jàpp ne kii moom ku ñu war daal di jëflanteel lañ ah ñu tàmbali tàmbali loolu tàmbali la rek tàmbali la ndax ku ne gis na maanaam région de Matam ni ñu doxale woon seen diggante ak Touba ak région yépp ci Sénégal nga xam ne dafa mujj mel ni ku jóge Touba moom dëkk boo dem rek da ngi am bët bu buñ la xoole te booba day jàngoro ji dafa mel ne matagut sax fanweer ci réew mi yépp waaye ñu média ñu médiasit ñu médiatise Touba maanaam mel ne tubaa moom mooy suun bi nga xam ne fi jàngoro ji dëkk fexe it ba def ko ci xeli nit ñi ba nga xam képp ku nekk ci réew moom jàpp nga ne jamono yoo dajee ku nekk Touba rek moom daal di nga am corona ci saasa doxin woowu ñu di ko dox li tax média réew mu ne seen média bu teguwut ci woon nam ci war a tegoo mooy siinum réew dana tàkk te duñ ko yëg kenn ku ne da ngay toog fi béréb rek jàpp ne yëf yi mën naa bañ a àgg fenn fi te fekk yëf yi mën naa weesu sax fa nga defee ne mën na faa bañ a àgg. ndax ku ne xam na ne Sénégal li gën di danse ci réew mi mooy kilifa yi ku la ci gën a féete kaw man na ci wàllu kilifteef man nga ne mooy ki la gën a umpule li xew ci biir réew mi te ñooñu it ñoo am dogal ci réew mi kii war di dogal ci yow nag te umpale biir réew mi li ciy xew kooka bu fekkee mi ngi mi ngi mi ngi dogal toujours li muy dogal mën naa doon ay njeexum yoo xamante ne mën naa xëy jural réew mi catastrophe te moom it sax du ko yéene waaye ak ñàkk xamam dong moo koy waral ba tax na man de bëgg naa ñu dëpp ci dofin bi ñuy dox ci jàngoro ji ñu xam ne jàngoro ji ni fi soj nekke woon siburu nekke ko fi njàmbataan nekke ko fi ngas nekke ko fi xuréet nekke ko fi ràmm nekke ko fi ñu dëkk ak moom jàngoro ji dafa sanc si kopp ak comme jàngoro yooyu te jàngoro jii sax mën nañoo wax ne jàngoro jàngoroy ngas moo ko ëpp doole fopp ëpp ko lu mu rey ci réew mi jàngoro yi sibiru ko ëpp doole fopp kon gis na sibiru daan faagaagal ci réew mi njàmbutaan rek xale yi nga xale ne maanaam duñu woon mage mooy mooy jàngoro ji nga xam ne moo gënoon a bon ci ñoom méningite nekkoon fi kon nañu doon dundee ak jàngoro yooya te yàqut suñ digganteeg suñuy bokk yàqut suñ digganteek suñuy dëkkandoo yàqut suñ digganteek suñuy waa réew loola yaakaar naa ne war nañ koo mën a dëkkee ak jàngoro ji kon nii ñu def jàngoro ji maanaam mel ne jàngoro ji eh, eh, ku dal maam day mel ne ku ku ñuy tam la day mel ne ku ñuy ber la day mel ne ku ñuy bedd la jàngoro ji dañu xool jàngoro ji jàngoro ji ñoom ñuy faj ñoo ne quatre vingt cinq pour cent yi mën na leen a daal te duñ ko yëg quatre vingt cinq pour cent yi duñ ko yëg waaw jàngoro joo xamante ne quatre vingt cinq pour cent mën na a daal te duñ ko yëg ndax kon nag jar na nga tënk sam réew ndax jar na nga féewale saw askan ndax jar na nga noonale ay xeet ndax jar na ko. te jàngoro ji doxin wii nga xam ne état baa ngi ciy dox mi ngi xàjjalay bokk di noonale askan di xàjjalay dëkk indi bañante ci biir population bi te loolu mi ngi law di dem ñu ba ko ci waaye man Xaadim Jóob maa ko wax suñ ci amul ak deltu ginnaaw suñ ci amul ak deltu ginnaaw sensibiliser nit ñi teg leen ci aw yoon woo xamante ne mën nañoo dund ak jàngoro ji mën nañoo xëy ba jàngoro ji xëy def loo xamante ne mooy raw fopp li jàngoro ji waroon def ci réew mi ndax su ngeen gisee ma wax loolu ak ab néew lañ tàmbali ni dee su ko fi suul ci kanam tuuti ay nit daañ jóge cib dëkk dem cib dëkk nii ñu doxe buñ ko sensé wut egg waa dëkk ba rey leen waa dëkk boobee it am nañ feneen population ñooñu itam daal ca kaw ñooñu rey leen su ko defee muy graveli goo xamante ne noo toog ci càggante toog ci cuune ba mu xëy am ci réew mi bu boobaa nag yaakaar naa ne loraa ngi réew mi yépp la kon buñ toog rek di xoole ku am ay xalaat war nga koo génne te xalaat te xam ne xalaat jot na te xam ne lii ah ku ci tiitu fi tiit jot na ku ci tiitu tiit jot na lii li mu nar a jural réew mii téeméeri corona coronavirus yu nekk bi réew mi moo ko gën ndax jàpp naa ne feebar moom bakkan rek a tax ñu di ci tiit ak te doxin wii nga xam ne maanaam ñu ngi koy doxe ci jàngoro ji moom mën naa xëy faagaagal ay bakkan waxuma koom-koom réew mi waaye man na fee yàq loo xamante ne boobaa kenn ku ci ne du ci mucc ñépp nag laa wax kenn kenn du ci mucc kon nag nañ teel a dëpp ànd ak sunum xel doxe sunum xel fexe ba jàngoro ji ñu fexe ba lii mën a jural sunum réew ñu fexe ba mbañ a jàll ñu ngi law ngi lawal nag di dem rek li tax ma ne ñu ngi lawal di dem rek bu njëkk benn dëkk lañ ciblé woon muy Touba ñu dem ba jàngoro ji ku ne xam na ne am na gox yoo xam ne te yaakaar naa ne tuubaa matul ñu seen asaka ci jàngoro ji teewul sax ñi doon xool bët bi Touba moom ba tey ña ngi koy xool Touba ndax loola moom la ñu dugal ci seeni xel te it moom lañ doxe kon duñ ko mën a ñàkk doxe noona bu ngeen gisee ma wax loolu bu njëkk dañ na wax dëkk dëkk waaye mën nañoo dem ba fii nu toll ñu naan géejawaay Pikine a nga taxaw du nangu ku jóg géejawaay tàbbi Pikine muy histoire caaro yi nga taxaw du nangu ku jóge eh, Pikine tàbbi caaro yi histoire taxaw lii nga xamante ne moom lañu lañuy jëmbët di ko wax ci xeli nit yi di sibile ay gox seen moroomi gox xamuñu nu jàngoro ji deme am ci tiitaange ba tax ñoom ñu defe ne maanaam lu ñëw def di jël ci seeni bakkan la ba mu leen lu ne politique boobu nañ ko teg ci suuf Tuubaa gi nga xam ne kat ñoom dund nañ jàngoro ji xam ko xam lu ñuy dundeek moom xamit ah degere eh, jàngoro ji ah jël nañ matukaay yoo xamante ne muy matukaay yi yoo xam ne daañ mën a dëkk ak moom man mën a dëkk ak jàngoro ji ndax jàngoro ji demagut kon si jàngoro ji dem ëggagut nag moom dañuy am tiitaange comme ni ko dëkk yépp amee waaye jàngoro ji am na de waaye nag dayoo bi ñu ko jox àggu fa lii mënu nar yóbbu it nag jëru ko ci ñun kon nañ bàyyi xel xam ne ñii yëngu ci wàllu médecine daañ la jox garab buy faj nangam dañuy xam ne garab gii kat ñu ngi la ko jox muy faj nangam waaye dana joxe nangam ci sa yaram waaye dañuy xam ne la muy faj lim lay jox maanam day mel ne la muy faj mooy ëpp doole dana la jox sax ah, loo xamante ne jàngoro na waaye nag dañuy xam ne lii mu lay lii mu lii muy lii muy bàyyi ci sa yaram bu moo gën li nga xam ne moom la la jàngoro jii na la jural garab boo jël rek am na effet secondaire loolu dafa dem ba am ci jimmi feebar bii dañoo war a xool jàngataat xam ba xam nun niin ciy doxe lan la nun nar a jural ndax réew moo xam ne fi ñu toll buñ ko seetloo lépp tënku na te dara doxatut kenn ku ne toog fi nga toog nekk ci jaaxle gu rëy goo xam ne xamoo kañ ko ci génn ñépp laa wax amul kikkaa ko seen rek mi ngi toog fi béréb di dund jaaxle goo xamante ne xamul kañ di ci jóge ngeen gis ñu ñu téye fi béréb bàyyi woon seeni place fi béréb seen dëkk fañ nekk ñu xamal leen leen place yi ngeen bàyyi woon toj nañ ko jël bagage ba dara nekkatu sàcc lañ wax ah xam nga ne kooka moom moom jàngoro ji yóbbi ko loo xam ne moom daanaka jàngoro ji da daloon ko mu faju te te dem ci liggéey moo ko gën ci moom te nawet bii nga xam ne Sénégal ku ne xam na ne li ëpp ci lii dundal réew mi mbay mooy ci jiitu te mbay mi dafa am heure bu muy tàmbali am heure bu mu yem ndax Sénégal moom bokkaguñ ci réew yi nga xamante ne ñooy amal bopp ñooy amal euh, euh, seenum nawet seen bopp fii moom nawet bi ñu fi miin mooy mois de juin bu ko teroo balaa jeex ñu gis ndox wàcc ñu bay li réew mi dunde lépp ñu di ko bay ci weer yooyu bu jàllee ba diwénati loolu moom lañ fi moo fi am te ku ne gis na ne nawet boobu fi mu toll li tënk lépp nar na ko tënk nawet boobu nawet bi ndax ñu bari ñu ngi fi béréb war a bay te duñ bay ñu bari ñu ngi fi béréb lañ doon lijjanti am ciw jiw amuñu ko ren ñu bari ñu ngi ñu lañ doon lijjanti ngir man caa am jur guñ bàyyee noona kon jaxle gu mag day daal di tàbbi foofu ci biir àll bi ci biir baykat yi kon foofu it yaakaar naa ne lu jara xalaat la ndax it Sénégal amul lu dul mbay li ëpp ci population bi ci mbay lañuy dund kon mbay moomu it buñ ci amee càggante ba li tënk lépp tënk ko dana wuute ndax mën naa am transport moom bu ñu bu heure bu ñu bàyyi woon suba lépp del mën naa dellu fa mu nekkoon leneen noonu leneen noonu waaye nawet nag mooy looy mooy loo xamante ne moom dañ ko moom moom day mbir moo xam ne boo ko tënkee ba njëlbeenu nawet jàll taxaay waaye biñ ci waroon a am amuñu ko ci moom déwénati nag te boo waaye nag muy lu metti muy lu metti muy lu jar a bàyyi xel xam ne baykat yi itam eh, warees na leen a geestu ndax amuñu fuñ jëm amuñu fuñ jëm kon eh, ñu nekk ci kaw te yore yi fii dañ bàyyi xel xam ne li ëpp ci askanu senegal ñu ngi ci buntu guuta goo xamante ne bu ñu yeexee buñ ca tàbbee réew mi yépp dañ ko yëg te boobaa li ma koy waxoon sàng rek jàngoro joraw coronavirus dana fi am wax ci gudd na lool waaye ay njàngat la rek yoo xamante ne dama bëgg rek ah, ñi ko séqal ñu xam ne ñoo ñoo bokk réew mi te am nañ ay xalaat comme niñ ko amee te lu am ci xalaatit it war nañ koo ballal di ko teg ci taabal ji su ko réew mi jëlee jariñoo ko mu njariñal réew mépp bu ko réew mi jëlut jariñoo ko bu ëllëgee catastrophe bu ci amit ñu xam ne am nañ doomi réew mi yu taxawoon yoo xamante ne waxoon nañ lii ngir doon bañ lu mel ni lii dal réew mi dal leen loolu mooy wax ji moo tax wax ji munta ñàkk bañu gudd discours la boo xamante ne dañ ko war a def ci réew mi di ñaanit mu yaatu ba ñëpp jot ci ndax mën naa am bu yaatoo ba ñëpp jot ci rek du ñàkk euh, ko am baat ku ci ku ci ku ci mën a dugal doom su ko defee réew mi mën koo jariñoo ndax lu jariñ réew mi rek lañ bëgg lu jëmee réew mi kanam rek lañ bëgg bu nu sañoon Sénégal gii lii fi nekk dañ koy xam lin am nu xam ko te téye ko te xam ne kat Sénégal ni ko yàlla bindee muy réew moo xamante ni réewum jàmm la waruñoo fexe ba di fi dugal loo xamante ne mën naa indi catastrophe te lii ñu fi indi mu tàmbalee noonu la ay xeet tàmbalee noonu la ay dëkk tàmbalee noonu la ab askan mbir la moo xamante ne lu jara am ab taxaw seetlu la bala ñu àgg foofa jërë ngeen jëf